ku baax nuyu nañ la nga wóolu woon ñun ñun waa Sen TV mu am loo xamante ne da nga ko bëggoon dénoncer ñu bàyyi la nga nuyoo nga présenté wu. bonjour mbokk sénégalais maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm euh, man je m'appelle Omar Diakhaté j'habite ici à la cité Aline qui se trouve à Golf euh, suite à benn atrocité boo xam ne sama sœur daf ko dund. ok lu waral nga wóolu ñu fii. donc sama sœur Maïmouna Diakhaté elle a perdu la vie le 23 de ce mois passé suite à une opération chirurgicale donc euh, mon ngi ko defee il y a une année en arrière ci SAMU municipal bu Liberté 6 deux voies Liberté 6 donc euh, le docteur le chirurgien en en charge qui s'appelle Ousmane Thiam bi mu décédé sama caatu yaay jël euh, photo bi auparavant de cela sama caatu yaay xawoon na dal ci kawam ne ko kii yéen a ko gaañ li ko yóbbee yéen a ko ko parce que fibrone cassée warul mën a tax ngeen di laal yenen organe bi mi doon def opération bi lan moko dal foofu. bi mi def opération bi comme mom elle est analphabète ma mère elle est analphabète elle peuvent pas lire parce que moi je me je me dis dans des structures sérieuses boo en tant que patient je dis pas en tant que client parce que désormais je dis pas tous les hôpitaux mais beaucoup d'hôpitaux ici au Sénégal ils reçoivent des clients ils reçoivent plus des des, patients bi mu ñëwee man li ma gis ñu bind ko. Ils ça veut dire qu'ils n'ont même pas pris le temps d'identifier la personne le malade et elle s'appelle Maïmouna Djahaté. donc moi, je me dis que peut-être ils sont omnibulés par les sous. lan opération opération ils ont dû toucher à des organes il ne il fallait pas mon des complications des infection pulmonaire donc euh, à la longue la circulation sanguine même n'était plus ok ok la démé quoi. la donc bi mu demee noonu ñu jël ko yobbu ko fan biñ ko yóbboo fan ñi ñi xam nga les les les docteurs entre eux ils ont un langage codifié. man biñ ko jëlé diko ko à la maison hospice d'hospice en hospice laa woo sama frère qui top ci man il s'appelle Massiré Diakhaté mané ko Massiré mané naa ko li xéñ neexul parce que man moi je savais nettement que ces jours sont comptés donc euh, au finish elle a été sur assistance respiratoire bu fekkoon sax elle a été sur assistance respiratoire avec bouteille oxygène mais ben machine la c'est la première fois que je le vois de ma vie bu am ndox dañ koy brancher ci courant donc voilà quoi 24 heures sur 24 machine bobu lay noyer, courant coupé même tu as peur que mu rendre l'âme d'une minute à l'autre c'était très compliqué donc moi je me dis que une telle souffrance nit sax mérité ko donc à la longue man dama ko doon souhaiter sax ngeen djegal ma ci cadeau je suis musulman dama ko doon souhaiter qu'elle qu'elle qu'elle qu'elle rende l'âme à ah, mon yomb ci parce que elle a souffert la pauvre hein elle a souffert docteur bi en charge Ousmane Cham, bi décès bi amé sama caatu yaay moko photo sama défunte sœur bi may jaxaté avec un texto quoi lui disant que ki ngeen a opéré elle a rendu l'âme daf ko bloqué sur le champ. Mhm. il était avité. man donc il da ngeen jàpp ne. Eh, mhm. li dal centre sœur. si docteur boobu la jógee. mais faut le jógee évidemment eh, mais elle n'a jamais traîné une maladie. elle était très en bon point la connaissance elle était forte Elle traînait une maladie bi fait une opération sa vie a totalement basculé hein. mm-hmm. donc il faut le bah, donc janvier elle a été alitée de janvier jusqu'à sa mort c'est trop janvier jusqu'à sa mort mais les mamans en général, ici au Sénégal particulièrement, parce que les autres pays africains, je ne maîtrise pas, c'est des simplicistes. Et yalla moko dogal affaire yalla daf devenir créer technique ci souffle. Une société, ça doit être régi, régi par des lois. C'est ça Donc, contrôler. Borom que sax bu contrôler wul kërëb anarchie mo fay Et voilà ce qui se passe maintenant dans nos hôpitaux. Le, cas de ma sœur, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous ngi ray fi jigen ñi ci ay opération yu yo xam bo démé Europe États-Unis dañ koy sama sœur ma sœur ma propre sœur elle s'appelle Mariam Diakhaté elle vit aux États-Unis bima ko ko elle a été vraiment ébahie elle m'a dit que ici dañ lay opérer un un jour deux jours bu féké fibrome la mais tu vas à tes occupations et voilà ça lui a coûté la vie hein. Euh, gana ba nga xamante docteur bi bloqué na sa frère bi. légui lan mo nekk une réaction une famille bi ak lan ngeen di fas yéene def. non suñu réaction moy il faut qu'il s'explique parce que lii dafa yomb trop il faut qu'il s'explique parce que ñoom xamoon nañ lii ba pare di ko trimbalé d'hôpital en hôpital Mais la mais première fois bu ñu nous fan dañoo ñëw on bindal ñu ay xam nga lan ñu a wax dañuy wax ki tuberculeuse la am bronchite chronique ce que je ne voulais pas comprendre Moi, comment tu peux aller à l'hôpital tu payes ton argent il ne parvient pas à déceler ton maladie ta maladie du moins ça ça ça ça c'est une une grosse erreur tu ne peux pas venir dans dans dans une structure sanitaire bi boo ñëwee ñu naan la non ay amuñu ay machine fibroscopie man sama frère Mohamed Diakhaté il a il a subi une opération li ma lay wax na 95 96 à Thiès Dakar mo gën développer Thiès fibroscopie warul warul warul warul jafé fii bi Dakar ñi ñi trimbalé Lo. si la xam ni kii ñoom codé woon nañu ko ba paré quoi xamone nañu ki ces jours sont comptés mo taxone ñu doon yéxal échéance bi. Mhm. donc voilà. est-ce que da ngeen di porter plainte. ah mais c'est c'est mon souhait moi personnellement c'est mon souhait parce que dit beaucoup ko bàyyee c'est dafa yomb quoi c'est mon souhait porter plainte hein. waaw lu ñu yoon may ñu jël. waaye. Mm-hmm. Euh, sa sœur bi yalla nako yalla yàlla yalla nako yalla ko yàlla xaaree aljanna moom ñaata at la amoon. Amine euh, mom moy sama taw yaay. elle est de 76 76 à nos jours je pense ça fait 46 ans. Mm-hmm. Euh, elle a été mariée elle n'a jamais eu d'enfant donc euh, voilà quoi c'est triste quoi. c'est triste elle n'a jamais eu d'enfant opération bi bo gisoon mu def ko tout un toute une femme souhait moy un jour après bu marié mu am dom am njaboot xam naa loolu ci dugaloon mais en contrepartie sama frère sama caatu yaay Ousmane ak Massiré il les avait prévenus nee na leen bu mu def opération bi dafa melni ñom dañ ko yëgoon sen yaram parce que en connaissant le système sanitaire ici au Sénégal il y a beaucoup même je je vous dis il y a beaucoup de Sénégalais qui sont à l'étranger en Europe aux États-Unis amuñu million amuñu milliards xam la mo leen fa bàyyi système sanitaire bu baax ce système sanitaire doit être révisé hein je vous le dis il faut appeler le chat par le chat yaa wax lu am solo. Mhm. yaa ngi ne hôpitaux yi. Mhm. Eh, du ñu recevoir patient. Mhm. mais client la ñuy recevoir loolu est-ce que man nga mako expliquer. mais tout à fait je vous dis en 2019 man ab samay tank maintenant je suis allé à l'hôpital fan la wax sama caatu yaay ak sama yaay ñom ñoma yob je suis resté trois mois dokuma mais suma ma ñëwee balaa ñu lay recevoir rek non mais c'est tout à fait un problème je vous dis hein man ben exemple là ci won rek ben exemple bu minime. Mais les gens souffrent ici dans ce pays, je vous dis. Hein. Les gens souffrent ici dans ce pays. Le système sanitaire sénégal, c'est zéro. Je le dis et je pèse bien mes mots. Je le dis et je pèse bien mes mots. Le système sénégal, ici, sanitaire, c'est zéro. C'est zéro, c'est deux fois zéro. Euh, sa sœur a un rapport avec amoon ak lan moo a marqué man étant l'aîné de ma maman comme elle n'a jamais enfanté franchement. Ne lu mu nekk sama sœur rek motax may wax à l'unanimité ñi ñi dañ ko ko témoigner dafa njàmbure daa téye boppam dafa julité. au fini sax dafa muuru wona ah. dafa muuru won amul problème ak kenn waaw franchement parler te xamna yalla mo def limu amul dom. ñun frère yi am dom ak sœur yi mais dafa do susciter suñu enfants yi comme c'est pas possible hein. je vous le dis hein. man dama naan sax mom c'est une sainte franchement parler amul kenn ku ci amal xarma yalla elle était vraiment quelqu'un d'exceptionnel maman maman sax témoigné na loolu ci moom jambour. Le bëgg na nit bëgg na xale surtout elle aimait trop les enfants sama donne personnellement ma ma ma ma fille elle s'appelle Nawal bi mu yéegee décès dafa de dafa jooy elle a pleuré elle a pleuré franchement elle était vraiment quelqu'un de très bien waaye ba pare man li ma marqué ci moom mooy elle était très pieuse waxtu du ko raw lu mu mënti def fu mu ko fekk day bàyyi lépp lu mu def mu jàpp mu julli lolu mom moom mun ko ko témoigner waaw en tant que frère en tant que musulman. Euh, ban appel ngay lancer état du Sénégal pour situation bu mel nii euh, mu mën a jóge ci biir réew mi. sëñ bi euh, gis nga tubaab nee na qui aime bien châtie bien gis nga l'état du Sénégal ici au Sénégal ça il y a beaucoup de choses qui se passent il y a il y a trop de laxisme ici gis nga nit bu fauté da nga koy wan ne da ngaa fauté donc, nga koy wan carrément da ngaa fauté l'état du Sénégal man je me dis hein, est-ce que nous ça nous avons des états parce que ñoom est-ce que nekk luñ fi seen bopp parce que Barolo, bi moom bu feebaree moom il a il a peur hein, il craint pour sa vie ñoom bu ñu feebaree ils prennent un avion Ils vont soit aux States ou bien en en Europe ils se font soigner puis ils reviennent parce que xam un système de santé bi plateau médical bu baax mais gouvernement moom moo koy def fii nit ñi amuñu doole boobu ba le personnel doit être le personnel doit être un personnel sélectif c'est ça le problème mais nga ñëw di jouer avec ay mais ñaata yoon lañ lay wax opéré nañ jigen fat nañ coton ci bir bi ça c'est du cinéma ça c'est du cinéma il faut l'État il faut que l'État prenne des des mesures vraiment des mesures exceptionnelles ku def lo war a def ñu daan la de la manière la plus sévère donc moi, c'est ce que je vois comme solution. ñu ngi lay jaajëfal bu baax yan du ngay daanale. Euh, ma ngi ñaanal population sénégalaise yu néew doole surtout les femmes maa leen di ñaanal maa leen di jox benn kàddu ne leen bu dee situation bi nii lay continuer ku ci ku ci ku ci amul moyen ñu yóbbu la opéré la non mais bàyyil yàlla jël la naturellement parce que fii nii moom bu ñu la opéré c'était tes jours sont comptés hein. et moi j'en ai vécu l'expérience